salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum ñu nuyu ku nekk turam ak santam man la seen frère Mafta baaba maa ñëwaat tey indi leen ci beneen chronique di wax ci rangu mooy li xew senegal tey ñëpp fan yi maanaam kenn amul jàmm rangu bàyyi rangu jàppal rangu jëlal rangu mu doon koo xam ne xawma ma ko woon ah, comme ñëpp ah, mais réseaux sociaux yi ak nit ñi ak Imam Matar Gueye ak yenn réseaux sociaux yi tax na ñu xam kuy rangu ba ku ko xamuloon sax dem nga jéem a xam ku mu doon ak di jéem a xool li mu def mu defut waa ndax ñun noonu la war a dëkkee ndax ñun dañoo war a dëkk ci ci lu ñaaw saa su ne bu nekkee ci suuf ñu ñu fexe ba ñun ñi nga xam ne seen yoon nekku ci amuñu envie ko ñu fexe bañ xool ko dañ ko kumpa ndax ñun dañoo war a dëkk ci ñu bëgg a rey di ñu wan li nga xam ne soit bu góor jigéen wala drapeau góor jigéen la ñu fexe ba nit ñi xam ko xam même bu fekkee xamuñu ko woon ñu fexe ba xam ko di lijjanti lan mooy couleur bi ba lijjanti ba xam ne lii mooy lii ba ku gis di couleur boobu sax sa xel dem ci loolu te loolu waru waroon nekk noonu pour man pour man ñun la ñuy defal ñooñu la ñuy defal publicité alors du loolu lu ñu war a wax man pour man du ay rangu daa war a génne photoog warul génne photoog mais Instagram moom la yor posté fa photo ak nu mu ko bëgg a bu ko nexé mu def ko man bok sama jangat ndax bama démé xol ci Instagram dañ kump ndax ni ko média yi di waxé man duggu na xam lu waral wax ji ñu ne ma ci Instagram la post ay vidéo woné ni ko neexee gis nga nit ful la boko amé ya ko may sa bop ku ñak fayda ba def taatu neen dem sa Instagram def ko fa nit ñi xamal la ko yaay rendre compte sa doom yaay rendre compte yalla da dama japp ne su de mom rangu ba def jëf juni mel ay waay way nañ ko baye ak bopam ak yalla ndax yalla moy ki até waye buñ ko bëggé jël manam ne Instagram place publique la du Instagram du place su publique nañu redresser mbir mi Instagram mun nañ ni privé la ndax bala nga fa dugg da ngay inscrire de 1 de 2 da ngay am tour am sante wala nga ya xol lula la neex surnom wara nga nga créer nga am sa profile manam yow c'est personnel bu la neexee nga bloquer nit ki du fa duggu ba du meuna xol sa information man de suma amé problème ak nit bugguma mu xol limay def ci Instagram suma ma neexee bloqué ko ci aduna dootul gisat li may def kon c'est pas public c'est privé Imam Matar Gueye sa liggéey rafet na lool gis nañ yaa ngi def lu baax Sénégal yaa ngi jéem a jubbanti mais parfois erreur yi mooy le fait que li nga xam ne si suuf la jarta fësal ba nit ñi nga xam ne xale yi ndaw yi sax ñi nga xam ne seen yoon nekkul ci woon ci rangu xamuñu woon kuy ràngu dinañ jéem a lijjanti kuy ràngu jéem a lijjanti Instagram bi yow da ngaa man jàppoon ne yow wala ñun dañoo jàppoon wala ñoom dañoo jàpp ne xëy na peut-être dañuy dimbali rangu alors que dañuy gën def publicité à son nom dañuy gën a def publicité à ce que li muy def mooy vulgarité boobu noonu ndax ñi xamul woon luy rangu ak jëfam jooju dinañ dem lijjanti page rangu bindu turam ci Instagram bi dem ci profilam ajouté ko mu accepté leen ñu doo a xool li muy def loolu man pour man bu ëllëgee nañ ci bàyyi xel ndax defoon nañ ko ci wàllu sekk ci euh, yëre góor jigéen yi ñu bëri xamuñu ko man mii ndëkk États-Unis laa nekk mais xaw woon loolu waaye ba ma déggee affaire yooyu laa dem lijjanti ko xool ah daal leen ah kon kon kon ren boo kala bi ku euh, góor ñee ko moom mais ndax loolu ñun du du du ay lobby ñooñu ñooy ñooy la ñuy fay ñooy ñoo leen di fay ñun ñuy jëm dugg suñu suñu maayin di ñu gëmloo yenn yi ndax à chaque fois c'est c'est c'est de la publicité ah nañu wax di dëgg nañ ko wax de dee ndax ñi xamaloon ràngu bari na xam ñi xamuloon jëf ji lim def bari na mais tay ji ni tax na ñëpp bàyyi seen xel ci rangu lijjanti dem page am kër lijjanti alors que man pour man c'est c'est c'est malhonnête quoi man pour man ndax damay taxaw def jangat man suma ma demee page rangu di xor rangu lim def man ma dem ci page am rangu su demoon jël vidéo def ko sen TV mba def ko wal Walfadjri wala fo xamné c'est c'est une télé là je peux comprendre né il a offensé oui, elle il a heurté la population sénégalaise mais quand dem page Instagram posté ko vous dem qui ko koy la rangu ndax ay lañ dem di woné ëlëk compte ak yalla ëlëk moy rendre compte ay ak ñum jur ndax la buñ amna lu pire li nit ñi di def ci plage ngori goor ak jigen te do ko gis ci benn plage goor ak jigen di sangu ñu ay string ni mu ni ko rangu solé ñuy rayanté xam ci def anam bo xamné do ko gis ci benn plage ci aduna te pourtant ñep xam bo démé ngor wala nga dem euh, goré xam ngor surtout il de ngor ku yag dem île ngor xam nga lima lay wax ni fa goor ñi jigen ñi nekké du yoon du doon du deug imam gisuñ ko taw wax ñu ci ndax dañoo war a dëkkee ci ñun ñu ñuy jéem gëmloo ne lii baaxul ba ñëpp ne lii baaxul ñu nanguwaat ne lee baax na nañ jël làmb ji man sama xarit yépp ay mbër lañ ñu ci bëri ci li may liggéey ñi ma xam xam nañ ne mbër ñi dañ may fekk si say ñëpp ay xer laa ci am am ci benn problème la ñuy def ndax ma duma ma juger doomu aadama mais dama bëgg rek parfois ñuy xalaat avant ñuy wax wala ñuy jëf ndax ñaari mbër yi def yaramu neen ngembu sama sama mbokk sama yi samay xar ngeen ngeen baal ma ŋàññu mu leen li ngeen def mu leen def da bon de ngi jéggulu de mais damay joxe exemple rek dañu def yaramu neen ngeen def def ngembu entraîner ba ceene jantal ay xalé yi ndaw di leen sétane ay jigen nak, xëy peut-être goor rek mo wara a gi jigen gis bopom, gis mbax wala gis bopam mais jigen xana moom bu gisee goor bu entraîner ba melni bombardier xanaa woon moom warut gis boppam warut a war a yëg boppam moom ndax lii nii kii def piiru li rangu def bu dee rangu moom day day day day heurter population bi ñii nii ñi dem ci télé bi ñoom xanaa heurter wuñ nit ñi seen seen sensibilité wala seen wala seen i wala ñoom bu euh, jigéen ñi mu am ñu yëg jëg ndax góor rek moo war a am yëg-yëg xale yi xale bu ndaw bii gis ngeen def dafa yaramu neen xale bi di roy ci moom bëgg doon ni mbët ëllëg ndax bu fekkee ni li Maam Makhtar Gueye wax dañ ko war a sukkandiku ne ràng moom li mu def war na ay cëram dëgg la lu def lu bon la amul ñu ci nangu wala ñuy ànd ak moom waaye buñ jógee ci ràngu nañ dem ci làmb ji man bugguma yàlla jéppi ñu ñun Sénégal ndax suñu jikko mooy dañuy ŋàññi leen na ba pare nangu leneen li nga xam ne ñëpp xam nañ ne du dëgg du yoon mais lañ ciy gëmm suñu ba parce que dañ naan suñu suñu culture la non non loolu dara neewu ci daraan ci ndax ay punkal yu entraîné ba ton nu len neex ne ci ne ci télé bi ñu tek len télévision nationale nak ñu simé ko ba set jantal entraîné ba ciéné def ngembu xam sen awra bi presque duma né day feñ wala day tamponé xalé yu ndaw tok di len sétane jigéen ñi tok di sétane euh ku tok ak jëkkëram sax tok di sétane bu jigéen jëg bi sàag mu né waye ki def man neex euh, euh, euh diiw sam mbeur la waaye daf ma neex moo gën a moo gën a taxaw kële léegi kooku moom moom moom ku jigéen kooku moom nan lañ ko war a wax moom Imam Makhtar Gueye damaa bëgg loolu ngeen tontu ma ci est-ce que yéen rango amul dëggu ci yéen nañu wante dëgg rango man aw ma xaw ma ko tey xaw ma ko suba d'accord mu ci li muy def ndax du dëgg du yoon jigéen da ngay nëbb say cër ndax sa jëkkër ëllëg ngeen baal ma lii sama xalaat képp la mun naa juum na ngeen baal ma